ñu ngi leen nuyu bu baax mbokk yi di leen ziar nuyu suñ mbokk intrant xam ñu ngi ñuy saa su nekk mbégte la ñu am suñu waree jàkkaarloog yéen ci chaîne bu mag bi nga xam mooy Dakar People comme ni koy defee tey nag ñëwaat nañ ñëw nañ fi nga xamante ni mooy suñu kër yaay maman Aïcha borom borom borom des TV borom sa bouche ku ne maman Aïcha xam ko ak ki nga xamante ni mooy maman Kiné Diouf Diaga nee naa la moo fi bàyyeekoo bu yàggul ndax li ñëpp di mën a wax ci maman Kiné Diouf jàgg kii moom dafa fekk léppam. ki dafa fekk démb fekk lépp macha allah lim ci mën a décortiquer si diggante moom ak maman Kiné Diouf jaaga bari na muy maman Aïssa moom lañ dalal tey ci dakaar People dama ko jox Aïssa bu nuyoo après ñu woy li nga xamante ni mooy waxtaan bi Aïssa maman nuyu naa la. waaw maa fi fay naa la maa ngi lay ziar bu wér di nuyu waa àdduna bépp di sant Serigne Touba ak maam Cheikh Rafal di ziar sama wasila Cheikh Roqay Fall borom di sant ñëpp. ñëpp ñëpp maa ngi leen di sant mm-hmm. di jaale nag sama xarit bi fi bàyyeekoo muy Fatou Kiné Diaga mm-hmm. maa fii mm-hmm. tey damay dëgër wax ak yéen ci émission bi ndax jooy faju dara ki ne fi mu nekk nii fukki lixlaas ak benn la soxla nu ñaanal ko yàlla xare ko jannatul firdaw si te am nañ ci bu njort lu rafet rafet rafet rafet ndax boo juddoo baax ba màggat ba yàlla yóbbu la kenn amut lum la waxal ci àdduna amoo benn tâche boo xam ne nii def nga ko ci ku suuf ba nit man koo wax kon dañ lay ñaanal mu nekkoon nag soppeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggoon yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam boo bëggee ci moom dara sax boo koy nax sax mën nga koo nax ci Seydina Muhammad loo ko ci naxee mu nangu yàlla na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teeru moo boroom këram ba ma fekk coon sekk ak doomam ja muumi dani di ko jaale nag waa Faramaren gépp di ko jaale waa kër Papa Thione Seck bu Gueule Tapée di ko jaale waa kër Pape moor Dior sekk di ko jaale Alaaji sekk di ko jaale képp koo xam ne nii rek Kiné Diouf mooy sa waajur maa ngi la koy jaale di ko jaale Waly Ballago bu baax Mariasin di ko jaale Aïssa Rasoul Bintu di ko jaale Babacar Mohamed di ko jaale Seydina Alioune Seck di ko jaale Fatima Soxnaam di jaale Soxna dara mi nga xam ne jaaga moo nekkoon léppam di ko jaale Didi Ndiir di ko jaale waa kër gi yëpp muy janq yi ca kër gaak ñoom kura di ko jaay nag sama yaay ju baax ji muy ndeyam ki ko meññ muy ndey wuri ba ndax nee na doom ndeyam da caa dëgër bu koy nàmpal da koy xool ween woowu ki ne nàmp moo lawtantey ba téq ak njabootam ba kinne mën a toog def lu baax ba àdduna tey taxaw di ko ko seede mhm. maa fii mhm. man dara bagajuma dara yóbbuwuma kinne gëj naa koo gis mhm. ci bi waali nekkee xale bu ndaw yàlla dogal gisantewu nu gisantewu ndax loolu dafay am ndax kinne dafa nekkoon nit ko nga xame ne euh, bi ko coon jëlee dafa dëddu àdduna sëy rekk a ko ñor ndax li ñuy wax itam ci jigéen juy say dëgg la jëlal sa jëkkër def ko xarit say goro say njëkke ki nekk coon moo nekkoon léppam léppam léppam di xaritam bi coon wàññi koo dem sax ñu baree ngi di wax naan ah Kiné Diouf mii Kiné Diouf mii Kiné Diouf mii ma ne leen dara yàlla mën na ko fee bàyyi mais gis nga diggante bu sincère dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te yàlla may la lim la may nga fees dell ak yàlla ak yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. en général doo gudd fan màkk sax boo fa demee mm-hmm. bu sax añ nangoo sax doo gudd fan waaw mm-hmm. ki ne nag fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na dee di nooflaayam moom sax xam naa ne dee bettu ko ndax bu xalaatoon ne dee da koy bett du jënd bàmmeel ba bind fa turam dat bi mu gaañoo rek xëy na lañ fay mottali mm-hmm. waaye préparé woon na boppam mm-hmm. waajaloon na boppam mm-hmm. yar nag njabootam ci diine gone yi dañuy téye kaamilu alxuraan di ko wàcce coon sekk ku ko xam-xam ne doomam du nekk ci du def lu bon du wax lu bon du dugg ci nonsense jaaga macha allah yàlla bu ko cat topp yàlla bu cat topp ay doomam yàlla na leen cat seexlu njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na leen yàlla làq fa yàq yëggul ci barke Seydina Mohamed te rafet naa ci njort ndax ni leen yare xale yi xam na ñooy kan waaw li coon ko doon ko way naan ko Kiné Diouf xam na boppam waaw. ndeysaan mu nekk lu am solo Aïssa nee naa la ba tey ki ñu jàkkaarlool. mooy suñu yaay suñu xarit maman Aïcha ndax ku ne maman Aïcha ne xaritu maman Kiné Diouf Diaga ndax li ma wax sànq rek moom moo ñu mën a wax ci lu baree bari moom diggante moom maman Kiné Diouf Diaga ndax boo xoolee wax dëgg yàlla ñoom ñaar yàgg nañ séq nañ jàmm séq nañ salaam séq nañ ay waxtaan yoo xamante ne sax ñu ci bëri xamuñu loolu ma tey Aïcha yaay boo ñuy wax tey sa digganteek maman Kiné Diouf Diaga ban ban ban nit la dëgg la sax naam ku nit ku baax la loolu moom booy na sax nopp nit ñi mais tey yow mi nga xamante ne yow yaa séq ak moom lépp séq moom biir séq ak moom biti daan ko fréquenté mu lay fréquenté ngeen daan nekk tout le waxtaan tey boo ñu doon wax tey maman Kiné Diouf Diaga ban nii la tey daal <laughs> li ma mën a wax ci moom li naan li duuf ci nag wi xajut ci cin li Kiné ku tàmbalee wax ci moom suba ba ngoon jot lu baax rek ngay wax ci moom amul lenn lu bon loo xam ne dañ koy denc pour bañ koo wax déedéet Kiné Diouf weenu ndey wuri ba ba mu nàmp ca la baaxee ndayam na mu séyee noonu la séyee doomam yëpp macha allah ñoo bokk nday ak baay euh, man kinne bi ma koy gisaat mooy dëju muumi boobu mënuma woon a ñàkk bañ a dem ndax xam nga xale boo koy téye di ko fab mu bëgg la su daan nàmp sax bu ma bu déggee sama kàddu sax day daal di bàyyi ween wi bu ma daan génn di dem day jooy topp ma ma ànd ak moom papaam daf ma daan wax Euh, maa sa bàyyil sama doom ji nga yóbbu am nga fitu sax ne yaa ko jur mm-hmm. ma ne ko ku ma xool xam ne ni kii juruma ko mm-hmm. mu naa ma bàyyil sama doom ji ma ne ko sa doom jee ma bëgg bu may dem muy jooy di ma topp dama koy jël yóbbu rek mm-hmm. Kiné nekk nit ku nga xame ne nii ba mu toogee ba tey jógut waaw Kiné dafa galère mbapat ba yegsi ci arène national bi doomam nag ñëw di bëri bëri bi muy Waly Ballago Kiné juuf lu man te wax ci moom buñ ko doon wax tey suba bu guddi duñ fi jóg fii ak fukki at nu pare mu nekk nit ku baax nit ku social nit yi jirim yi yaay jirim yaay ñi nekk ci prison yi yaay ñi seen xel wàññeeku ci raffinerie mbaa boo demee këram am na ci koo xam ne ma nga fa ki ne faj ba mu wér ba amoon mébét ci yóbbu ko màkka man dëju muumi laa ko gis bi ma ko nee gis tëll daf na ma yaa ko daan boot yaa ko daan yendoo sa doom la amoo kenn koo ko jaale na ma maam ay sa fan nga nekkoon man site internet bu ma la ma saan gis damay jël seen numéro dan may jox numéro waaye bu ma la ci woowee duma la jot ma ne ko xëy na numéro yin lay jox du sama numéro moo tax doom ma jot bi nga xamee ne dëj bi passé ne ma ñëw fii kër Papa Thione ñu jóge kër Bogaan ma ñëw ndeysaan muy ngelaw may ñibbi ma ne ko kinne maa ngi dem mu banque xaalis bu bari jox ma ne ma dangaa yor oto ma ne ko waaye kinne xam nga ne yoru ma oto mu ne ma amoo permis ma ne ko déedéet mu ne ma soo amoon permis sax dama may oto di di ma reetaan daal di may dóor nii ci gannaaw ma dem mu ne ma subaa di nga ñëw ma ne ko ci suba gi dinaa ñëw ca ëllëg sama ñëw ñu nekk ci gannaaw di reer ñu toog di waxtaan ak xale yi mu di leen fàttali su sama diggante ak moom xale yi di ree mu naan leen kii de seen ndey la bi xale yi réeree ba jóg ñu toog noonu ci gannaaw mu ne ma nuy waxtaan ci disque door bi mu ne ma Mama Aïcha barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam looloo nekkoon waxam waale dina am lu dul door d'or Mama Aïcha ma ne ko naa mu ne ma sama doom ji kenn mënut ci moom dara xam naa ni ma sëye ak baayam xam naa ni ma amee samay doom kon nag nit ñay wax rek mais itam am na loo xam ne maa fii xajut ci xol sa taaw bu jigi sa jëkkër wàññeeku mhm. nga xam ne xamoo woon ku dut moom àndoog ma sàmba àndoog ma dem ba ku dikk da laa fekk sa xarit bu dem këram da nga ko faa fekk mhm. fréquenté kenn waaye nag xaritam bu ci am xew mhm. lam war a def ca xew dina ànd ak délégation dikk def ko dem yoonam mooy seede bi ko koor ko fay seede rek mi doon séyeg bil maanaa keroog bi taawu koor bi dana ko dara bu ko fit bu ko def lépp maa koy def su ma paree léegi dinaa leen fon vidéo bi ngeen gis ko lépp moo ko fa def ànd ak yar ak teggin toog kinne moo njëkk yaru moo tax mu yar ay doomam maa fii tey boo demoon kër kinne di añ wóor na jëmmi sëriñ Touba doomam du laal digg ndab bi dañuy dagg di leen tegal bu nekkee ci beneen cour beeg ay xaritam ay doomam ñu ngi ci gannaaw duñ toogan toogandoog mag ñi xale yu am diine xale yu am sago xale yoo xam ne ay taalibe leen ndax seen baay taalibe bi sëñ Abdou Khader la woon taalibe bi Serigne de passage ma di ko ñaale Momy Bousso mu njuga Kebe di ko jaale waa kër Momy Bousso gépp dama leen faa fekk gis ni nu demee Kiné ndeysaan am na un jour ñu toog di waxtaan ma ne Kiné ma ne ko xaar bu nit ñi demee ma wax la mu daal ne ma déedéet waxal ñii doomi Momy Bousso la fekk euh, dafa ma doon yónni ci côté Diourbel fu nu mën a defal Momy teen gasal ko fa nit ñi di fa naan dem naa ba lijjanti ko ba indil ko devis bi keroog laa ko mujj gis bi ma ko indilee devis bi laa ko mujj gis ma jox ko début bi mu toog ci kaw taabal ji nuy waxtaan ma jox ko début mu yëkkati ko joxaat ko Mouhamed Seck te xam naa ne waa këram incha allah dinañ ko mottali ci kàttanu yàlla ndax mébét moomu mu amoon moom rek la def ci doomam yi xol bi ne ci moom rek moo nekk ci doomam yi li dëj bi metti metti metti metti metti doomam yi man fekkewuma rob bi ndax damaa dem ne leen du ma fi fekk ndax xam naa sama bopp te Aïcha Rasoul du dugg ci kër gi ma koy gis mook Babacar ma loolu su fekkoon ne sax du sama xarit wala aw ma xolub yërmande ci ay doomam sax loolu jaboot laa jur naa ndax tey boo ko xoolee ci sa bopp booy dund boo xoolee sa jaboot bu wàññeeku nga xool ko ci sa bopp rek day metti waaw rob bi rob bi mën nañu wax ne jouru daj bi maman euh, gisoon nañ la wax dëgg yàlla mais après maman nag moom nag bul yàq émission bi nag maman nag wax dëgg yàlla ndeysaan ndax maman yow ku la xam xam ne ak suñu yaay maman ki na juf jaag ay waay ngeen mais pourquoi euh, nga ñëw ci jour dëj mais après nangu woo gis xale yi du om bën di ko bës xam nga nga gëj gis sab xarit boo xam ne yéen a fowandoo màggandoo yàlla may ko teraanga def doomam ni ko def gisantewuleen mu taxaw wax ak yow yëkkati xaalis bu bari di wàcc ci escalier yi woo ma ma ñëw ñun ñaar ñu taxaw mu yëkkati xaalis jox ma daal di ne ma nii daal di ne ma ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinaa la teral yow sama alal da cee war a lekk ak sama doom yi dinaa la teral ma ne ko Kiné damay dem euh, Gàmbi mais bu ma ñëwee dinañ gisante sama demu Gàmbi bu mujj boobu laa gëj a ak moom mooy bi ma ko indilee kii bi noonu début bi ba pare. ma indi ay bagage nii ay maynees ketchup ay bagage mhm. indi ko di ko ko jox mu ne ma lii ñaa ma ne ko dama la koy jaay jaay yàlla tere mhm. ki ne kay fi mu nekk nii nag wax dëgg yàlla damaa war a séqanteeg yow lu baax ndax sama nitug démb nga waaye waruma laa jaay ndeysaan bintu daal digg ubbi saagam génne fukki junni jox ma mhm. ma ne ko bintu duma ko jël mu ne ma jëlal sa doom la ma daal di jël bintu fu ma fekk taral ma Aïcha fu ma fekk tata raay ma muy Mouhamed di ma fekk Alioune dafa jël téléphone sama téléphone bindu ci numéro jox ma waaw ñu nekk ay xale yu baax a baax xale yu am fulla xale yu am fayda xale yu am personnalité te maa fii lenn maa ngi la koy xamal ci sénégalais yi laay waxal bu ngeen gisee bërki démb dëjub Kiné Diouf bi rek war ngeen a mën a ragal doomam ji bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax tey jii képp koo xam ne yaa ngi wax ni ci moom loo ko dara jaaga mën na fee bañoon a sax yàgg budul sax demuk jëkkëram mën na fee bañ parce que doomam ji am waali indi waali nu koy awtu awtee mu mel ni jinjeere xew am na loo xam ne am na problème yoo xam ne sax nit ki mënu koo dékku nag wax fa dëgg yàlla waaye nag doomam ji muy waali balaago Baay Faal brut la parce que maam Seex Faal te deew ndeyam gi ak cant rek la ci moom ak cant rek la koy def ndax Baay Faal la taalibe maam Cheikh Ibra Fall la te waa kër maam Cheikh Ibra Fall am nan fun ko teg waa kër Serigne Touba am nan fun ko teg waali ay ndayam mag ñëpp a takku ba dëgër na ci gannaawam maa ngi wax sénégalais yi nag ni leen ndayam dem na mais barke maam Cheikh Ibra Fall am nay ndey am na am nay ndey ndeyam yëpp a takku ba dëgër di xaar rek ku tuddati waali ndax ndeyam yu euh, jaagaa leen doon dànkaa fu ne leen bu leen wax bàyyi leen noonu bàyyi leen noonu waaye ndeyam yi ma am yëpp mën nan kum tudd mat kom tabaski takku nañ ba dëgër duñ bàyyee te kenn di trespasse sunu doom ci Gambien yi itam maa ngi leen di gërëm di leen sant ku mel ni Sol Sall ku mel ni Mouhamed euh, Diop borom euh, Waali sob promoteur bu mag bi ko yóbbu Gàmbi ku mel ni Fane Ndiaye ku mel ni di Sidibé ku mel ni Ayda Ndiaye ku mel ni keneen ak keneen ak keneen ak keneen Gambien waali fii lañ ko teg maa fii lenn maa ngi la koy wax Gàmbi oto boo dugg muy taxi lu manti doon waali la ñuy teg soo leen nee wàññil sa musique bi sax damay wax téléphone ñu ne la ah, damaa déglu waali buy dugg Gàmbi nu gis neen koy teeroo waali du président du yàlla du yonent bi du xut bu samaan waaye fu mu dugg da ngay gis mbooloo mi topp ko loolu sa ndey sëy nga wax ñu déglu la fu sa doom taxaw ci mbooloo ñëpp xam ne doomam la ñëpp xam ne kii waali la kon war na noo xam ne sa maman à travail li may wax toujours yaayam dafa sëyal bàyyi bàyyi waali Kiné Diouf dafa sëy Kiné daana xëy suba bu ko defaree kafe bala moo gisati coon cinq heures du matin musul ne u musul ne ah ndax coon boobu temps day dem liggéeyi coon jëlul ay doomam rek euh, Euh, kii leen nii de jur leen nii rek bàyyi leen de lese leen de dafa def ci ñoom alxuraan mu fees dell ci seen dënn bi te moytul ma koo xam ne nii day téye alxuraan di ko jàng di julli foo ko fekk mi ngi ànd ak njàpp xale yu tuuti dem siyaare ji Seydina Mohamed ah war nañ leen a moytu de Sénégal moom boo xawee tekki tuuti dun la may jàmm waali laa gis musicien boo xam ne fii ci senegal xëy na nag ñeneen ñi ni nga def gisuma ñeneen ñi xëy na ñi ngi def gisuma waali laa gis bu tabaski jotee mu def parking u xar am na it ñu koy def néew ji doole yëpp daw di làqatu ci moom mu yëkkati ay xar jox leen ñu tabaski ji loolu rek mën naa sàmm gone gi di yëkkati ay oto di ko may di yëkkati xaalisam di ko may te amu ci benn merci xoolal ñaata nit a génn di ko wax lu ko naqari ci alal jum leen may mais où est problème ah où est problème Aïcha mu nekk lu am solo muy suñu yaay maman Aïcha li ñuy faral di wax rek moom yaayu doo Wally Seck doom la ci moom ndax ku ne maman Kiné Diouf Diaga ne maman Aïcha di jaalewaat suñu yaay bu baax a baax a baax a baax yal na ko yàlla yërëm taxaree ko àjjana Aïcha maman bi loolu amee loolu weesu ñu ñëw ci li nga ñu naan Wally Seck dafa war a bàyyi way dafa war a bañ a way te looy tontu ci loolu. man li Bambaali wax rek ma intéressé. Mm. wax naa ko de ma ne li Bambaali wax. Mm. ñu laajaat ma ku ko wax ma ne leen sénégalais yi mais foofu sax damaa waroon a leeral ndax Sénégal mooy loolu. Bambaali damaa toog ak moom ak ramay Ndiaye yaayam Rama Ndiaye ma di la jaale ki ne Diouf de passage yaag ma Penda Seck ak Kéba ak Ousmane maa ngi leen koy jaale bu baax a baax a baax di ko jaale Daba Seck euh, ñu toog ma ne ko waa Bambaali dégg nga li sénégalais yi wax waale day bàyyi way mu ne ma bàyyi way fan <laughs> waale mënut a bàyyi way ñun ay faramareen la. waali am na stade boo xam ne nag bu fekkee ne da faa toll comme lii nii nii nii mën naa stade baay ndax waali da daan ñëw jouer euh, ba ay euh, kii lundi mu demaat Paris ci yaayam def ñeenti fan dikkaat kër ba mu nekkee grand théâtre waali ku ne xam ne ni nekkul way na sax yaayam foofu way na yaayam foofu waaye lépp pour bégal sénégalais yi kon sénégalais yi yi ma ko war a wax war nañu koo mën a dellu njukkal te bàyyi doomu jàmbur ci ndayam dëddu na de mais mi ngi mel ni ndayam a ngi ci wetam tey la Kiné di gën a garaaw sax ci njabootam Kiné juuf bi koor bi dugg senegal jant bi dana fàng bi avion bi atterrir dafa jant bi daa dugg ñetti fani poussière keroog maam Abdou Aziz si ba mu nelawee xëy na ay gone ngeen waaye bu ngeen ko laajtee di leen ko wax bu mel nii moo fi am te maam Abdou ngi nelaw a nelaw ak kii Lady Diana bu Prince Charles waaye dëkk bi dafa dafa mel ni danoo danoo wàcc poussière ci kawam. ma laaj ko ñu ne ma lii nga gis nii du poussière malaaka yi ñooy sàbbaar ndax ki fi jóge loolu moo moo feeñaat ci Kiné ñu koy rob gis ay picc ci armeel yi Kiné Diouf maamam ji jur baayam Alaaji Diouf Njaay Kura maamam dafa taxaw ca dex ga ca ndar taxaw di seetu jinne ji génn ci dex gi xëcc ko ne ko nit munta gën a rafet jinne maami waale ngi ci dex gi la coon sekk waxoon euh, abdu juuf ne ko bu la wooteelul sax jinne yi dinañ la wooteel waale bu doon tëgg sax wóor na jëmmi Serigne Touba jinne yi dinañ doon jëmmi nit dugg ci ba euh, fa muy tëgg fecc waaw baayam lu mu way boo ko seetee ci alxuraan am na ci aaya alxuraan way bu araamee itam way woo xam ne day neexal xol mm-hmm. way woo xam ne day dañ lay taggal say maam nit ñi xam la mm-hmm. ah woo xam ne nii da kontaan dem ba di fecc mm-hmm. kon way la ca araam mooy nekk di way di def na ko su dul noonu waali tuxut waali defut lu bon ku xam bàyyi waali xam ne ay doomam duñu def daray nonsense keroog ba nit ki dikkee di fayeeku baayam dégg naa baayam ne ko chèque bi suba laa la ko war a jox suba laa ko war a retirer kooku ne ko du ma dem danga may jox sama xaalis waa léegi taxaw coon du yoreel kenn dërëm chèque boobu la doon jël bu retirer ko pour fay ko ñu nekk ay baadoo la Sénégal bëggun koy dem waali daal di ne kooku ne ko gees ne ko oto bi mat na li nga ko yor mu ne ko ëpp na ko mu ne ko jëlal yóbbu baayam ne ko di nga maye oto ba sonn yaayam wàcc mbub mi mu soloon génne sërëm wodd ko ne ko di nga maye oto bay maye ba mel ni koy maye daal te bu mi ngi ci nan def très Kene Diouf dafa ñaanal waali ak ay doomam ñàkk ay doomam yar ay doomam teg leen ci siraatal mustaqima jël yàlla ak yonent bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko ci ay doomam coon seku ku mu tudde doomam saabanga ba ci korko mi mi may wax naa ma am naa doom joo xam ne sama caat mi bi coon ñëwee di ko tudd si dane dane bilmaana kii Seydina Muhammad lañ koy tuddee waaw tudde tudde tudde nga ma waaye kii may ma ko ma tudde ku Seydina Mohamed kon kooku lan la nu mën a wax lan la nu mën a wax man li ma bàmbaali wax laa dégg de waalidu du sa bàyyi way ci àdduna ma ma wuy ma waali sax du bàyyi pour lan muy bàyyi way waali bu bàyyi woon way sax mi ngi sant yàlla waali bu wéyutoon sax baayam bàyyi na leen fee loo xam ne ba du sonn seen nday bàyyi na fi loo xam ne du sonn muumi danee nga ne keroog ba mu nelawee ba bugaan lan la def ci moom poème xamal ko ne ko maa ngi door a am maa ngi door a doon jirim muumi na mu sëyee ni ndeyam seye rek la sëyee mu sëyeenu ndabal fay muumi gis na lu ne musul ne u musul ne ah waaw ku sëy ba sa jëkkër gërëm la ah sa jëkkër euh, euh, taxaw di wax naan jirim laa kenn juuf jëkkëram way ko way mu réew wi te coon sekk euh, way na ko way de way na ko way wu te nee na way na way woo xam ne ne soxna boo koy tànn danga koy seet segg ko seetaat ko ndax doom ya lii la bëggaloon ñoom waali te waali baay faal la ndeyama ko doon dànkaafu du ma sa génn nag di leen tontu waaye ku ci taxaw jàkkaarloog moom dootoo ko defati